Au niveau de, du Sénégal, avec les kidnappings des jeunes filles, garçons, et puis c'est l'occasion d'abord de, lancer un appel aux parents d'envoyer leurs enfants faire du sport. Parce que je crois que si les enfants sont là au stade, personne ne va les kidnapper. Hein. Et puis le soir, ils vont rentrer fatigués, ils vont dormir. Euh, ne faut pas traîner dans la rue pour qu'on les kidnappe. Donc euh, c'est l'occasion de, lancer un appel aux, parents de, de, faire leurs enfants euh, des, sportifs. Parce que le sport quand même aujourd'hui c'est une industrie, hein, ce n'est pas, un jeu maintenant. C'est une industrie, c'est un facteur d'économie et puis c'est... Vous voyez aujourd'hui je suis conseiller spécial, c'est grâce au sport. Hein. Alors euh, j'ai visité 78 pays dans le monde aussi, c'est grâce au sport. Hein. Donc le sport d'abord c'est une source d'émancipation et de, de, développement social. Ah, les jeunes là d'abord euh, il faut les détecter avec les, techniciens que nous avons et puis avec la fédération aussi et puis, essayer de les accompagner, trouver des moyens. Ça c'est ce qui manque l'athlétisme, les moyens. Mais heureusement quand même nous avons un, État qui est là aujourd'hui qui, croit en sport. C'est pour ça que ce qui m'avait poussé à faire de la politique c'était pour euh, au niveau des décideurs, des politiciens, je décide là-bas aussi pour le sport. le président l'a compris parce que quand même il est entouré de sportifs, il y a moi, Dongo, il y en a beaucoup. Et vraiment, il a mis en place une politique sportive euh, avec euh, des, rénovations, des rénovations de, stades, vraiment construit des, stades. Je crois que vraiment le sport aujourd'hui occupe une place importante dans le, plan sénégal boo di lu euh, jotaay bi tey mooy ñaareelu yoon dañu fi dajale mooy euh, lancer d'abord suñu suñu club athlétisme bi tudd Cœur de Lion parce que lancé woon nañu association bi nga xam ne dafa dafa ëmb sport yëpp comme euh, aussi installé woon nañu école sama dëkk fee Dingiraay au niveau de Kaolack école athlétisme ak football tey ñu ñëw fii Dakar installé école athlétisme loolu moo war tey ñu lancé club bi ak xale yi nga xam ne gis nañ fi ay xale yu yu mën a nekk champion ëllëg muy góor jigéen pour jàppale leen encadrer leen comme ñun ni ñu defoon ak sama entraîneur Lamine Camara Kaolack gëm ñu foo ñu ni ñu gëm xale yi jàppale leen ba ëllëg d'ici 2024 Jeux olympiques à Paris ñu am ay xale yu mun a qualifier d'abord et puis bu ñu qualifier ba dem daw mun nañu mën nañu dem final wala gagner médaille alors loolu liggéey boobu dafa laaj nag vraiment jàppal ñëpp Euh, jappelé aussi euh, xalé yi ak aussi demande aussi soutien surtout état bi nga xamné vraiment comprendre nako ko mi vraiment sur walu infrastructure di tabax stade di di vraiment def lu mu meun loolu mo tax sama pusool ma def politique parce que gisoon naa ne euh, politiciens yi dañuy décider ci place sportif alors il faut ñun politique pour ñun fu ñuy décider ñu ñu ko alors loolu taxone nous ñu politique and ak président te vraiment ñu ñu président mi ngi entre ay sportif vraiment bu ñuy décider dañu si joxe suñu xalaat ba nga xam ne président teg na sport bi quand même fu foo xamante ne euh, sport mi ngi mi ngi mi dundaat. donc si loolu euh, vraiment ñu ngi koy rafetlu gis nañ xale yu am am am vraiment am nañu avenir vraiment loolu moo tax tey ñu lancé club bi xale yi di entraîner ñetti yoon ñeenti yoon semaine bi ak seen technicien bi entraîneur bi Antoine Beng ba nga xam ne vraiment bu si ñëpp jàppee demandé aussi ñu jàppale sponsor privé privés parce que pour le moment amaguñu sponsor parce que El Hadj Diaba moo ñu fi sponsorisé euh, des jus de trucs ak euh, bon euh, bon Thierno Jack, le neveu de l'AMI Diak Olympique Africa il va nous soutenir sur des maillots avec des maillots mais le reste les politiciens les ministres je ne vais pas nommer ils nous promesse non tenu alors un ministre à et tout ce qu'il n'a pas fait, un ministre à Ngayohem. Alors je, je, je, fais un appel au ministre aux bonnes volontés, d'appeler sport, athlétisme. Athlétisme, beaucoup de signes, moi, sport, Indi, vraiment Sénégal, le musul am médaille mondiale médaille olympique alors discipline nous xam ne dañ la war a jàppale bañ di jàppale làmb nangam pour euh, yefu politique politicien quoi parce que politique aussi xamuñu xamuñu xamuñu sport alors ñom lu ñu xam moy seen image oui dem na si lamb bi wane nañ ma alors donc loolu aussi sama mbokk politicien parce que damay politique ah mais bon nañu joxaat kaal vraiment sport yi nga xam ne vraiment sport individuel yi parce que karaté athlétisme boxe lutte gréco-romaine je crois que bu ñu leen jàppale yooyu médaille olympique ak yooyu vraiment ñoo ko mun a gaaw andi ko waaw si école yi et puis techniciens yi ñu àndal prof EPC e yooyu dañuy détecté si école yi xale yi et am na école de football aussi Dingiraay am na un technicien mu ngi leen di mu ngi leen di mu ngi leen di entraîner foofu aussi. vraiment loolu daal ñu ngi rafetlu ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm presse bi aussi parce que presse bi aussi dañu war a jàpp si sport bi parce que ñoom ñoo tax ñu xam sportif yi ñoo xam ñu taxam résultat sportif yi vraiment presse bi aussi on en a besoin merci